keroog bi nga xamante ni aaya sàngara wàcc na yàlla mu ni innama alxamr wal maysir wal ansab wal azlam rijsu min amali cheytaani fajtanibuuhu wattandiku leen saxaaba yi seen mbedd yi Medina fa xeeñ ku nag sàngara ñu ne ko intahaynaa yaa rab bis ñi ci tey pare nañ ci sàngara léegi waa ji muy joxe misaal mu ne lan moo tere ñun bu ñu déggee lii lan moo tere tey tey tey ci saa si ñu gis tëkku yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy tëkku ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi joxe asaka ñu ngi moytu lu bon xooluñ lu xaram ñu ngi wat ñu ko ay caaxaan njaaloo wuñu fenuñu jëw ñu defu ñuy bon yi lu ndaw a ndaw a ndaw lu toll ni buubal tubay nar ñoo dugal safaan lan moo tee ñu duggaat suñuy néeg daal di defarwaat xool ni lu ñàkk solo lii wur ñoo yàqal suñu jaamu yàlla yi nga xam toll ne ay camion yi camion lan moo tee nga gestu gannaaw gestu ndeyjoor gestu càmmoñ daal di wëtt ndiku jël say bànneexi bakkan yépp teg ko ci suuf te nga xam ni ñi nga xamante ni ñoo lay reetaan ngir sa tubay ji dafa gàtt saxaaba yi dañu leen daan reetaan ngir seen tubay dafa gàtt way daa marru bi yataghamazun way dan xalabu ilaa xalabu fakihin seen tubay gàtt yi seen ñàkkaay bu doy bi amu leen yére li ma waroon aay waaj Ali ibn Abi Talib mer dem ci yent bi di kalaame fekk alquran jiitunu ko fa inna alladina ajramu kaanu min alladina amanu yadxakun seen tubay yi daa gàtt seen sikkim yi guddi xanaa amu leen ay tubay xanaa amu leen ay at kon la ñu leen ko wax yàlla mu ni loolu moo waral nag fal yawma alladina amanu min alkuffar yadxakun ñoom dañu leen doon reetaan ngir seen yii ëllëg da ngeen di fay bu fekkoon te ne fayoog def la kay mu neex waaye ñoom dañ doon toog ci suuf si di leen di reetaan yéen nag tey alal araa'iki ngeen di toog yanzuru su ngeen toogoon foofa sax di leen sii mu neex waaye da ngeen di fayu ba ne doy na ma doog a bàyyi hal tuwibal kuffaaru maa kaanu yafaa kon loolu waa ji muñ ci firndeel mu ne kon loolu war naa tax kenn ku nekk mu dal di gëstuwaat yëlbuwaat xoolaat ni nag est ce benn mbir bu ndaw bu toll ni yëkkatil sa tubay ji jaral na ma tey ma sama jaamu yàlla yëpp dal di sànku dal di yàqu kenn ku nekk boo demee nga laaj laaj boobu sa bopp bu ko defee ci biir loolu mu ne waa ji mu ne est ce que dana dagan ci kàddu yi nga xamante ni ay nit ñu ngi koy génne di ci sukkandiku di firndeel ni ak rëy rëy loo taxoon yent bi di ko wax mu ni ginnaaw bu la ahadis yi leeree mu wóor la ni kon rëy rëy lu tax woon ana lan moo tax na nga daal di continuer ci kàddu yooyu di ko jël ba léegi waaye mbokk yi bu ñu seetloo ahadis numéro 10 bi yent bi jëlee li nga xamante ni mooy digg yeelu waa ji daal di fay nikk wàccaat tuuti daal di wax ni tubay amul droit mu passé li nga xam mooy dojor bi mu ni su fekkonte ni rëy rëy loo taxoon yonent bi wax ko kon ana léegi natt bi yonent doon natt naan fii la war a yem kon ban sens la natt bay am benn mu ne xoolal xadis numéro 6 yonent bi mu naan in kunta abdallah farfa izaarak su fekkee jaamu bi yàlla bi yëkkati si tubay ji kon yonent bi mu ni ci xadis bi mun di ciy sukkandiku ni duñ nangu ni mukk ab jaamu bi yàlla nga lu dul tubay dañ ko yëkkati charte la ak jawaabu charte charte mooy in kunta abdallah jawaabu charte mooy yëkkati sa tubay ji yëkkati woo sa tubay ji mooy doo abdallah wasalaam kon waa ji mu ni bu ngeen gisee yonent mu ni ko in kunta abdallah su fekkee ab jaamab yàlla nga farfa isaar ka yëkkati sa tubay ji sart la ak jawaabu sart sart bi mooy su fekkee yaay abdallah jawaabu sart bi mooy yëkkati li nga xam mooy sa tubay ji mu yëkkati li nga xamante ni mooy tubay ji kon loolu mu ni suñ ci dee firndeel da ngay gis ni kon la yonent bi fonkoon la salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñaar fukkeelu xadis bi mooy an zayd ibni aslam qaal أرسلني أبي إلى ابن عمر فقلت أأدخل فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليك فإن ردوا عليك فقل أأدخل قال ثم رأى ابنه وقد انجر إزاره فقال ارفع إزارك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه حديث أبو أحمد جنكو حميدي جنكو أبو عوانة جنكو جلن زيد بن أسلم مني sam papa daf maa mës a yónni ci kër Ibni Omar mu ni ma dem ba kër Ibni Omar ma daal di fëgg bi ma fëggee daal di wax est ce que mën na maa dugg nekk Ibni Omar xàmmee na sama baan bi Ibni Omar ma hey sama doom soo ñëwatee kër jàmbur da ngay wax asalaamualeykum wa rahmatullah suñ la fayee ba noppi nag ngay doog a laaj ndax ma duggam dee nee na bi nga xam wax na ma loolu ah ma wax asalaamualeykum doog a tàggoo ñu ne ma duggal ma dugg nee na bi ma duggee. doomu ibnu omar di jàll te tubayam ji mi di buubu bi tubay ji buubu ibnu omar ni ko yëkkati sa tubay ji dégg naa yéen sa saram nan kuy buubal tubayam ngir réy réylu yàlla du la xool yawmal qiyam bi maanaam mooy kuy buubal sa tubay ngir réy réylu yawmal qiyam yàlla du la xool jotewut ak yow dara waaw nga xool xadis bi ak ni muy tëdde yax bi ci kaw ibnu omar moom moo gën a xam ni doomam réy réyluwul ndax moo ko yar ci kër gi Ibnu Omar xam nañ doom ji li tax muy def buubal du réeréelu ndax moo ko yar ci kër gi loolu ab firnde la buy wane ne kon ndek réeri lu taxul yonent bi alayhi salaam wax ne ñu yëkkati tubay ji waaye ibnu omar ngir jëfi sunna yonent bi salaam moo tax mu ne ko yëkkati li nga xamante ni mooy sa tubay ji fukkeel beeg wala ñaar fukkeel beeg xadis ak benn an muhammad ibni ziyad qaal samiatu aba hurayra wa raa rajulan yajurru idarahu فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إداره بطرا لا لتوقي فنه حديث بابو مسلم جننكو أحمد أبو عوانة أك أبو نعيم الحية مني جننتي محمد بن زياد مني دقنا أبو هريرة أبو هريرة دقنا تمام مجلس بين واي بو خمني ميجي بوبل ليغا خمنتني مو يرم Abu Hurayra di dóor li nga xam mooy tànkam di ko këdd ci suuf si naan amir ñëw na fekk moo nekkoon amiru Bahrayn bi mu dikkee waa jooju doon buubal tubéyam tax mu naan inna allaha la yanzuru ila man yajurru idarahu bataran yàlla du xool mukk ci waa joo xam ne mi ngi buubal li nga xam mooy tubéyam te réeréeroo tax mu di ko def fukkee ñaar fukkeelu xadis ak ñaar an amr ibni maymun fi dikri qissati maqtali omar radiallahu anhu wa fi lxadis falamma adbara إذا إذاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أب أنقى لثوبك وأتقى لربك حديث البخاري جننكو ابن أبي شيبة تمت جننكو جننت عمر بن ميمون بمين تلي كرب بي عمر بن الخطاب دي فاتو من عمر بن الخطاب مي فاتو عمر بن ميمون مني بيغا خامتيني نيونا موي دم بمعنى مو نيو تي عمر باي ديلو bi muy dellu nee na yërëm mi ngi buubu te mbokk yi Omar ibn Khattab mi ngi ci sukuraat boobu mu ne ma dem ay paa Omar ni woo leen ma kële booy bële ñu daw wooye booy bi ñëw mu ne ko dama bëgg sa tubéy ji ngay buubal nga yëkkati te Omar mi ngi ci sukuraat de kuy sukuraat xel war naa xalaat ni war ngaa tal lenn lu dul yëkkati loolu nit ay tubéyam waaye pour jëfi sunna yéen sa salam Omar mi ngi toll ci sukuraat waaye mu ne ko sa tubéy ji laa bëgg nga yëkkati ko parce que moo gën a indi ak set waaye moo gën a wane ak ragal goo ragal sa borom subhanahu wa taala waaye mbokk yi ñaar fukkeelu xadis ak ñett an ibni masudin radiallahu anhu raa arabiyan yusalli qad asbal fa qala almusbil fi lsalat laysa min allahi fi xillin wala xurum jëlee nañ ci ibni masud xadis boobu abu daawud génne na ko tayalisi tabarani ci kubra bayhaqi ci kabir xaafis génne na ko ci alfath ak ñeneen ñu dul ñoom mu ni jëlee nañ ci ibni masud mu ni dafa gis benn waay boo xam ne mu ngi julli waaye bi muy julli yëre yaa ngi buub ba paase dojooy bi nga xamante ni loolu am na nee na ibn ibna ibn masud daal ni ko al musbilu fi salaat ki nga xamante ni mu ngi buubal tubéyam ci bu dee julli moom daal moom jotewut ak yàlla dara maanaam moom li ni ko yàlla compté mooy ku compté wul yàlla ci lu xaraam ci lu lu araam ak lu dagan moom ci lu sore ci lu jege yoonam nekku ci kooku mooy ku mel ni kii nga xam mooy buubal ci li bi nga xam moom la julli waaye su fekkente ni loolu la mbokk yi lan moo war a ibni masud joxañ waa ji nga xam ne mi ngi ci julli ak julli ni mu foore nga xam ne nit ki mi ngi jàkkaarloog yàlla ku ne xalaat ni ci jàkkaarloog yàlla kay xanaa réeréelu war naa mën a génn ci sa biir dënn te waa ji mi nga xam ne mi ngi buubal tubéyam donte mi ngi ci biir julli ibnu omar wan ko ni ko ku sori nga yàlla nga ci julli gi bi maanaam mooy yow lu dagan ak lu so lu araam lu yàlla dagan lu yàlla araam ak yow toppatoo ko sax faf te waa ji mi ngi ci julli te ku na xam ne ni julli waa ji liñ ci mën a xel xalaat kay mooy xanaa kay war na ci mën a ànd ak li nga xamante ni mooy ak ragal yàlla bu ko defee ci biir loolu ibn al arabi mu ne kon lii day firndeel ni dagan ci góor tubéyam daal di paase li nga xamante ni mooy dojaram jëm suuf ndax li nga xamante ni mooy tere gi def koo tere tere gu mat ngir natt bi nga xam yentum noonu la natt ni fii la tubéy war a yem ak nangam ak nangam di ko wuta li nga xam mooy yemuwaay xaafis ibni xajar al asqalaani moom bind buluugul maram muy nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy woote di wane ni li nga xamante ni mooy buubal googu day réyee noo taxoon yent bi di ko tere mu ni ahadis yi ñu jàng dafay dajji loolu sànni ko ca gannaaw waataati miir bi ñu ne ko lu ko waral mu ni li ko waral mooy lan moo waral kay keroog bi nga xamante ni ummu salama bi maanaam mi ngi doon laaj yéen sa salam atteb jigéen ñi ci li nga xamante ni mooy buubal parce que xam ngeen ni umu salama yëg gu mu yëg ni ku ku rëy rëyloo ku rëy rëylowul soo buubalee yàlla dina la lakk ci safara yëg gu mu yëg loolu moo waral muy laaj attib jigéen ñi ci buubal kon dégg ngeen ibnu xajar li mu wax mu ne pour wan na ni la rëy rëylu taxul woon ñu koy tere mu ni keroog bi ib bi Ummu Salama di laaj yonent bi waa jigéen ñi nan la ñuy def ci buubal xam ku mu xam ni ku buubal yàlla lakk la ci safara te jigéen ñi ñoom buubal moo leen arrangé dinañ ko leeral ci kanam moo tax muy laaj yonent bi waaw kon jigéen ñi suñu waree buubal kon lu ñuy def ndax xam ni kon buubal warul kenn kuy réeral la ku réeralul góor ak jigéen bu ñàggee ci jigéen dinañ ko leeral insha allah loolu moo waral ndeysaan yonent sa sam daal di koy leeral li nga xamante ni mooy jigéen nan la war a solo benn tomb la ci tomb yi buñ ci àggee danañ ko bàyyi bàyyi xel aywa beneen xadis boo xamante ni da ngay gis Ibn Omar muy leeral ni yonent sa salam nee na yàlla du xool waa ji nga xamante ni mu ngi buubal tubayam te réeréeloo tax mu di ko def ak waa ji nga xam mu ngi buubal tubayam moo xam ñàkk réeréeloo tamit moo tax mu di ko def kon loolu mbokk yi suñu ko xoolee benn ku nekk ci doomu aadama yi dana gis ni sahabatul kiram dégg gu ñu déggoon déggaloon yonent sa salam moo waral yonent bi saa bu leen jàngalee dañu daal di jëf su ne la xayra fi ma asfalal kaaba yi jàmm nekkul ci lu suuf li nga xam mooy dojor yi moo waral benn saxaaba daawoo ko gis lu dul ay dojaram bu la dandoon ay mètre da nga koy seen ndax tubayam daawoo ko li nga xamante ni mooy buubal ayu ci biir loolu bu ñu seetantelee ahadis yi nga xamante ni moo paase tamit da ngay gis ni ay ahadis ñëw na di firndeel ni rëy rëy lu ci la waaye ahadis ñëw na yu set wecc yoo xam ni tuddul rëy jotewut ak rëy rëylu dara kon day wane ni ku rëy rëylu ci nga ku rëy rëyluwu tamit ci nga ñaar fukkeelu xadis bi ñeent mu ne an abdallah ibni omar radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala sallam man jarra sawbahu xuyala lam yanzuri allahu ilayhi yowma alqiyama fa qaala abu bakri ya rasulallah inna axada shiqay sawbi yastarxi illa an ataahadu dalika minni minhu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تصنع ذلك خيلاء حديث بابو منك بخاري منك ابو داود نسائي حميدي طبراني تي كبير بيهقي اك بغوي تي شرف السنه جيل نتي عبد الله بن عمر بن ا يونس بي صلى الله عليه وسلم داف ني كيب كو بوبال توبيم غير ري ريلو يوم القيامه يالا دولا خول ابو بكر نيكو واو من يونس بي داي sama lennet ci sama lafal sérti loolu ñu doon tudd isaar sér lay doon genre sér yi waxul sama sama sér bi day wadd de waxul sama tubay ji day wadd waxul it sama tubay ji day buubu sama lenn ci tubay ji léeg-léeg mu ni cor set laal suuf waaye illa an an ataahaduha waaye saa bu ne ca wax ci suuf rek ma ni ko cor set xam ngeen ni abubakar siddiq ku sew a ndigg la sew ndiggam moo waral léeg-léeg tubayam daan bàcc di wadd mu ni léeg-léeg bi maanaam surtout solee tubay ji mu ni ko léeg-léeg sama lenn ci labas comme exemple ma jël lii mu ni lenn ci lafal tubay si léeg-léeg mu laal suuf waaye illa an ataahatuha saa bu ne cabax rek ma ne ko corset yëkkati ko waat gis nga xaalis bi ni mu ko tëggee inna ahada shiqay taw bi lenn ci sama lafal tubay si yastarxii day yolam léeg-léeg jëm suuf ila an ataahatuha waaye maa ngi koy nemmeeku su ne corset jëm suuf rek ma ne ko yabaxat yëkkati waat fa qaala rasulullah sallam yéen sa ni ko innaka lasta tasnau dalika xuyala yow defoo li ngir réeréelu am na ñuy sukkandiku ci xadis abubakar bi insha allah suñu jeexal ci la ci ci loolu lay doon ci lañ koy leerale xadis ñaar fukk ak juróomeel an ibni omar an annabi saa sallam qaala baynama rajulun yajurru idaarahu min alxuyala xusifa bihi fa huwa yujaljalu fi lardi ila yowmi alqiyama buxaari génne na ko nasaayi ahmad muslim buxaari fi taarix taarix alkabir mu ni jëlee nañ ci ibnu omar mu ni yonent yàlla muhammad nee na benn bis rek benn waay moo soloon yéreem di ko buubal réeré lu tax waa ji daagu di daagu yàlla xool ko ni muy buubalee tubaye mu jëppi ko rek ni suuf wannal la yonent bi mu ni ma ngay gëlëng gëlëng ngi jëm suuf ba yawmal qiyam àggagul fa mu jëm fa mu jëm kenn xamul ndax waa ji buubal gum doon buubal li nga xam mooy tubaye an fukki ñaar fukkeelu xadis ak juróom benn an abi hurayrata anna nabi saa sallam qaal بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة حديث بابو مسلم جننكو بخاري جننكو تمت التاريخ أحمد تمت جننكو الطيالسي أبي هريرة من ينتي على محمد بن بس benn waaye ni boo xam ne daf doon rëy rëylu di dox ci burd burday mooy ñaari yére yooyu arab yi burd ñoom ñoo koy faral di sol xat mu ni buubal gi muy buubal yére mi yéem na boppam xam ngeen ni en général sol yére yu nganda ngand mën naa réyloo nit wala gis loo nit sa bopp mu ni waa ji yéem na boppam yéem gi mu yéem boppam nag moo waral yàlla xool ko daal di koy jëppi ni suuf maanaam wannal ko yonent bi nee na mi ngi gëlëx gëlëxi jëm ci biir suuf ba léegi àggul fu mu jëm ba yowmal qiyaamati du àgg fa mu jëm ci biir fa lay wala yowmal qiyaam ci lay doog a àgg kon gis ngeen ñaari xadis yi mbokk yi gis ngeen ni kon ndekete waajoo ji doon buubal tubéyam ji noonu yàlla daal di ko ci jéppi ba daal di wax suuf na ma ko wandal wa la- lan moo tax yàlla wan mooy réyréelu gi mu doon réyréelu ngir tubéyam jooju mu doon buubal wala yére ñaar fukkeelu xadis ak juróom-ñaar an ibnu omar an nabi saa sallam qaal al isbaalu fi l idaari walxamis walimama man jarra minha cheyan xuyala lam yanzur illahu ila yowm alqiyama xadis boobu abu daoud nasai ibni maaja ibni abi shayba ak ba ñeneen ñi dul ñoom tamit solo nañ ko jëlee nañ ci ibni omar wala abi hu waa ibni omar mu ne yéen sasalam nee na al isbaalu buubal daal fil izaari moo xam ci tubay la mooy yére yooyu ñu doon sol wal xamis moo xam ci xamis la moo xam bolog la ak suñu pantalon yeeg suñu yooyu wala imaama moo xam tamit ci kaala la mu ni man jarra minha shay'an benn boo ci diri rek di ko buubal lam xuyala ngir réyréelu lam yanzuri llahu ilayhi yawma alqiyama yàlla du la xool yawma alqiyamati ñaar fukkeelu xadis ak juróom-ñett an abi hurayrata qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam baynama rajulun yatabaxtaru fi xillatin mucjibin bi jummatihi قد أقبل إداره إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو قال يهوي فيها إلى يوم القيامة حديث بوبو بخاري جنكو مسلم أحمد أك أبو عوان موك حديث جيت وانا نكا نيو خوايام mooy jëlee nañ ci abi gure mu nit sam nee na benn bis benn waaye bu doon dox di rëy rëylu ngir yëre yu mu sol yu rafet rafet mu ni muy tiitaru di ko diri jamono jooju yàlla daal di koy jëppi yàlla daal di wax suuf la ko daal di gëqal yeta jaljalu mu ngi mën a di daanu di rës jëm suuf yéen sa salam nee na ba yawmal qiyaamati mu ngi rës àggagul fa mu jëm ngir diir gi mu doon diir réy réy ngir réy réy ñaar fukkeelu xadis ak juróom-ñeent an ibnu amar an rasul salam qaal laa yanzuru llahu ila man jarra sawbahu xuyala xadis boobu malik génne na ko ci muwatta buxaari muslim termisi ahmad ibnu abi shayba buxaari génne ko ci taarix tabaraani génne na ko tamit ci alkabir ibnu amar ne sa salam nee na yàlla du xool waa ji nga xam mu ngi diri ay yéreem ngir réeréelu kon gis ngeen yu ci nekk rek daanaka diri ay yéreem lay wax yii mu wax ngir réeréelu yii mu nekk yi nga xamante ni du wax réeréelu du wax leen dafay boyal noonu rek daal di bàyyi fanweereelu xadis mooy an abi hurayra anna sa sallam qaal laa yanzuru llahu laa yanzuru llahu yawma alqiyama ila man jarra idaarahu bataran xadis boobu buxaari génn na ko muslim malik ahmad tayalisi ak ibni ibni aljaad ak bagawi tamit génn na ko sharh sunna abi hurayra ne nit sa salam nee ne yàlla du xool yowmal qiyam waa ji nga xam mu ngi diri li nga xam mooy isaaram bataran ngir réy réylu tamit ba léegi fanweeralu xadis ak benn an hubayb ibni mughaffal al ghifari annahu ra'a muhammad al qurashi qama yajurru idarahu فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطأه قيلا وطلأه في النار حديث بابو أحمد جننكو أه أه في زوائد السنة Bukhari génn ko ci taarixul kabir Abu Yaala génn ko Tabaraani génn ko ci alkabir ak ñeneen ñu dul ñoom mu jël nañ ci Hubayb ibnu Xaffal al-Xifaari mu ni gis na Muhammad al-Qurashi benn waay bu tudd Muhammad al-Qurashi mu jug bi mu jugee rek mi ngi taxaw di diir li nga xam mooy yére mi nee na Hubayb ibnu Xaffal mi daal di koy xool ni ko dégg naa yéen sa salam ni ko ay yére ku ko diiri ngir réyrélu ni nga ko diiree ngir réyrélu di nga ko diiree noonu ci biir safara lii maa ko dégg ci yéen sa salam kon mbokk yi ahadis yi yépp suñ ko boolee da ngeen di gis ni kon day firndeel ni tëkk gu ñuy tëkk waa ji nga xamante ni mu ngi diri ay yéreem ngir réeréelu ak yi ko jiitoon nga gis ni ñàkk réeréelu tamit soo ko boolee da ngay gis ni kon diri ay réeréelu ci lu sori ak ci lu jege daganoon ci ab julit mu di ko def moo xam réeréelu la ci jublu moo xam ñàkk réeréelu la ci jublu yéen sa salaam li muy wax ni ma asfala al kaabayni ma asfala min al kaabayni fa huwa fi naar bi maana li nga xamante ni moo suufu doyar ci safara la dafay firndeel ni kon tëkk gu ñuy tëkk waa ji nga xam mu ngi buubal li nga xam mooy tubayam passé li nga xamante ni mooy doyar bi fanweerelu xadis ak ñaar mu ni anna al abbas ibn abdul mutalib qaal qaala nabi saa sallam ma agnayta an ammik qultu nabi saa sallam ma agnayta an ammik fa innahu kaana yaxuutu yaxuutuka wa yaxdibu lak قال هو في ضخضاخ من النار يبلغ يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار حديث بو بخاري جننكو أه لفظ بموقع مسلم تمن جننكو عباس بن عبد المطلب دابا وقع يونس بي سباي بي عبد المطلب يو لوكو جاري yow lan nga ko jariñ moom moo nekkoon ci sa pegg di mer ngir yow di coow ngir yow ndax yow moo la doon jàppale yow loo ko jariñ muy day moom day ma nga ca xóotantaanu safara yàlla daf koo defal benn dàll boo xam ni fii dox doxin min an naar mooy noox noox bii moom la ci yàlla monté benn dàll nee nañ dàll boobu mu ngi koy lakk ba yuuram gi mi ngi bax nee na dàll bi dañ koo monté ba mu agsi fii nga xamante ni mooy ci dojor yi te moo ne kat day su dul woon ak ñun day mbugal ma dana gën a métti danañ ko gën a sóobu sóob ci safara safara moom Abu Talib kon xadis bi dafay firnde façon mbugal yi nga xamante ni moom la ñuy mbugal ci biir waa safara kon loolu day firndeel ni mu ni waa ji nga xamante ni dafa buubal tubayam te réeréeru taxul danañ ko mbugal ci safara waa ji buubal tubayam te te ngir réeréeru tamit danañ ko mbugal ci safara waaye kii buubal ngir réeréeru mooy gën a métti mbugal ci safara loolu lay bëgg a leeral moo tax muy waneel xadisu Abi Talib di wanele tanawwul azab mooy nit ñi duñu tollale mbugal kon waa ji buubal tubayam te réeréeru taxul dinañ ko mbugal ci safara bu ko yàlla baalul waaye kii def réeréeru tax dinañ ko mbugal waaye ki nga xam moom mooy réeréeru kooku moom mooy gën a tar li nga xamante ni mooy mbugal loolu la gën a bëgg a leeral ci xadis bi kon su ngeen xoolee ahadis yi ngeen xamante ni moom lañ doon andi yooyu yëpp dafay firndeel ni kon ndekete li nga xamante ni moom mooy mujj waaye waa ji nga xam dafay buubal li nga xamante ni mooy tubayam bu amul sens yàlla mën na koo duma ci li nga xamante ni mooy loolu kon damay dem a def pause incha allah ba ci kanam tuuti ñu daal di continuer ñaareelu xaaj bi dukk ci xukmu nisa fil isbal muy jigéen ñi nan la ñu war a buubalee ak bi ci topp muy subuh yi nga xam moo ci am bu ko defee ñu doog a jeexal incha allah dikk ci yeneen tomb bi incha allah kon incha allah ñu dellu siwaat ci ñaareelu xaaj bi ñaareelu xaaj bi mooy xukmu nisaa fil isbal mooy lan mooy àtte jigéen ci buubal googu nga xamante ni moom lañ doon tere biñ commencé wax ba léegi suñu xoolee li nga xamante ni moo jiitu ci ay xaadis ci gudd gi nga xam ne dañ koy tere góor di ko guddal li nga xam mooy tubayam wala tere bu ñu doon tere guddal tubay dañuy gis ni mu ngi jagoo góor ñi kese kese waaye tere gu ñu ko tere nee na jigéen ñi du ci bokk lu tax mooy xadisu fanweer ak ñett ci téere bi an ibni omar qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man jarra sawbahu xuyala lam yanzur allahu ilayhi yawma alqiyama qaalat umu salamata kayfa yasnau nnisaau bizuyulihinna قال يلقينه شبرا فقالت تنكشف أقدامهن قالت يلقينه ذراعا لا يزدن منه حديث بوبو أبو داود جننكو ترمزي نسائي أحمد عبد الرزاق أبو عوان جنن ابن عمر ibnu amar mu ne yonente saa sallam ne nag képp ku buubal li nga xamante ni mooy tubéyam ngir réeréelu yàlla du la xool yowmal qiyam nee na bi nga xam ne wax na loolu umu salama fekkee ko umu salama ne ko waaw jigéen ñi nag ñoom nu ñuy def ak seen yére yi war a boobu yéen tamit ne ko comme jigéen lu cee bokk waaye mbokk yi lu tax umu salama laaj ko laaj mooy umu salama ndeke mi ngi jàngal jigéen ñi ni xa jigéen tànkam wër ta feeñ loolu dafay leer jigéen ñu bari dañuy jàpp ni fi mu ne xam naa ne loolu incha allah danañ fexe kasari suñu mbokk yi jigéen ñi jot ci jàpp ni fi ne julli rek mooy waral jigéen daal di muur li nga xam mooy tànkam waaye jigéen même bu dee dox borom xam-xam yi ne nañ léem wër ta feeñ umu salama xam gu mu xam ni lii mu warta feeñ moo waral mu laaj yonent bi ni ko jigéen ñi nu ñuy def mu ne ko yor xëy na yor xëy na sibran dañuy yokk yokk lu toll ak sibra ñu ne léegi comme góor ñi dañuy yemal fii léegi fi góor yemal fa la jigéen di commencé yokk li nga xam mooy sibra sibra mooy natt paax comme def nii rek natt muy buubu bu ko defee kon dina buubu umu salama ni ko idan tankashifu aqdaamuhunna d'accord mën nañ koo def waaye suñ ko defee xam nga ni kuy dox da ngay jéggi jéggiwaat suñu jéggoo nii kon lii day feeñ dëggu tànk bi day feeñ bu ko defee yent bi ne ko yurqiinahu ziraan la yazidna minhu dañuy yokk lu tolloog ziraate buñ ci yokk dara mooy may nañ jigéen fi mu ne mu buubal lu toll ni fii ba fii yére même bu dee buub bu laalee sobe suuf si moo koy setalaat bu ko defee bu jullee dina am julli kon gis ngeen loolu dañ ci firndewoo ni kon jigéen tànkam du feeñ ci jullee ci ñàkk jullee ci yem bu ko defee buubal googu muy buubal umu salama xam ku mu xam ni jigéen warut a feeñ ci bu jigéen ñi defee ni góor ñi seen tànk feeñ moo tax mu ne ko nu jigéen ñiy def yent bi ne ko yokku leen sib mu ne ko d'accord waaye bu ñu yokkee sib lu tee bu ñu doxee mu feeñ mu ne ko yokku leen lu toll an umu ñaar fukkeel beeg ñeent an umu salamata qaala suila rasul sallam kam tajurru almar'atu min zayliha qaala shibran qalat idan tankashifu anha qalat ziraan wala tazidu anhu xadis boobu nasaay génne na ko ibni maaja ahmad umu salama ne dañoo laaj yéen sasal ni ko jigéen lu toll nan la mën a buubal ci yére bi mu ni sibran lu toll ak sibr mooy ndatt nii ci paa xaalat mu ni ko waaw idan kon tan kashifa aqdaamuhunna kon seen tànk yi day feeñ xaalat mu ni ko ziraan nañ yokk lu toll ak ziraa waaye laa wala tazidu alayhi na fexe bu mu yokk ci lu toll ak ziraa kon jigéen su yokkee lu ëpp ziraa ni muy amee bàkkaar mu ngi mel ni góor su buubalee tubayam moo tax boo xam ne ni wala tazidu min bu mu ci yokk dara mooy su fekkee jigéen yokk na lu toll ak ziraa lu mu ci yokkaat ci buubal rek day am bàkkaar góor it su agsee fii ci dojor lu mu ci yokk jëm suuf day am bàkkaar kon loolu lañ koy dégg bu ko defee suñ dee xool mbokk yi borom téere mu ni undur ala ayi nawin min annaasi kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatakallam mu ni yow yow mi toog di xalaat imaginel yan façon yi nit la yonent bi toogaloon jamono jii di wax ak ñoom ay nit yoo xam ne alquran day tooy xepp wàcc ci seen nopp yi rek ñu daal di lagg seen kër dem jëfe ko ñii la yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam ñoo xamante ni su alquran wàccee tooy xepp ci saasa dañ koy daal di jëfi ñii la yonent bi doon waxal saa sallam looloo waral umu salama yëg ni kon yonent bi waxam jii kat mu jaral ko nangami xadis yëpp wax ko ci kon lu am la mu ni léegi naa laaj comme dañuy tere buubal te ñun jigéen ñi dañoo war a buubal kon nañ ñu jënti boobu buubalu jigéen fu muy fekki lii moo waral xadis bi moo tax waa ji alxaafis ibni xajar al asqalaani mu ne walxaasil anna li rajuli xaalayn góor am na ñaari ñaari bi maanaam façon yi nga xamante ni moom lay jël bi ci njëkk xaalu istihbaabin façon bu ñu sopp mooy wa huwa an yaqtasira bil idaar ila l istisab bi ci njëkk mooy góor mën naa indi tubayam yamale ko ci digg yeel mooy xaal bu ñu sopp wa xaalu jawaasin ak xaal bu dagan li dagan mooy li ñu sopp moom mooy soo ko may def ci digg yeel def ko ci góor kon ñaari situation lay jël ñaareel mooy wa xaalu jawaasin ak bu dagan bi dagan mooy nay wàcc si ba ñëw ba jub si dojor yi waaye bu mu paase li nga xamante ni mooy dojor kon góor am na ñaari xaal xaal bu njëkk bi mooy naa ko def ci digg yeel bi su ma ko mënee lillahi alhamdu su ma ko mënul ma wàcc ba jub si ci dojor waaye bu ma àgg si dojor bi kon ñaari xaal yi boo ci def bii mooy bi nga xam mooy bu dagan bii mooy bi nga xamante ni bu ñu bi bu ñu non bi nekk ci digg bi mooy bu ñu sopp bi wàcc bi mooy bi nga xam mooy bu dagan mu ni walin nisaai kadalika xaalaan ni jigéen ñi tamit am na ñaari xaal xaal bu njëkk bi mooy ci bi ñuy jël mooy xaalu istihbaab comme góor bu ñu sopp góor bu ñu waxoon moom lañ sopp mooy jigéen kon jigéen bañ lañ sopp ci moom wa huwa ma la yazidu ala ma huwa jaizun li rijal bi xadri shibr bi maanaam bu mu yokk bu mu yokk lu ëpp li ñu daganal ci góor comme exemple ci misaal léegi góor dañ ñu ko war na yam fii léegi jigéen bu ci yokkee lu toll ni shibr rek loolu mooy li nga xamante ni mooy li ñu sopp wa xaalu jawaasin ak li nga xamante ni mooy lu dagan li dagan mooy bi xadari zira nga yokk lu tolloog zira xaw ma li ma wax leer na xaw ma leeru wax jooju soo demee ci Fathul Baari sëriñ boobu mu ngi ko fay leeral mu ni góor am na ñaari xaal jigéen am ñaari xaal ñaari xaalu góor mooy góor yemale ko ci digg yeel mooy bi ñu gën a sopp nag soo ko mënul mu ni am na bu dagan mooy nga wàcc ba jub si li nga xam mooy dojol jigéen am na ñaari xaal bi ñu gën a sopp mooy na fi góor yam na yokk lu tolloog sibru doy na mooy bi ñu gën a bi ñu sopp bi nga xam mooy bu dagan mooy na yokk lu tolloo zira kon góor noonu la jigéen ne la kon daal dinay jeex kon yooyu dafay daal di firndeel ni kon ndekkate mbir yaa ngi noonu waa ji da koy def ngir li nga xamante ni mooy diggalub yonent sa salam mu neex mu naqari da nga koy jëfe parce que xadis la samaan wa taa bu ko defee ci biir loolu wàcc gi waa ji bu wàcc boobu di jëfe li nga xam mooy xadis yi lu mu lay jural an abi hurayra muy ñaar fukkeelu xadis ak juróom radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه أبو هريرة عليه الصلاة والسلام نينا sarax day du wàññi ci li nga xamante ni mooy alal dara yàlla du yokk ab jaam ci wàcc oyof gu muy yooy oyof ak jéggale gu muy jéggal lu dul tedd nga teraanga waaye benn waay bi maana du wàcce boppam lu dul yàlla subhanahu daf ko yëkkati kon wàcce gi ngay wàcce sa bopp ba tax loolu nit ñi defe ni mooy ak doye di nga wàcce sa tubay loolu mën naa sabab yàlla yëkkati la ci subhanahu wa taala kon ci biir loolu di ngeen gis xadis yooyu ñaari situation yi nga xam moom la jox bii mu jox ko góor ngir góor am na xaal bu ñu sopp ak bu dagan jigéen tamit am na xaal bu ñu sopp ak bu dagan bu ci waaye def rek yaay seet booy jël waaye boo ci def rek baax na an abi hurayra ñaar fukki wala fanweeri xadis bi juróom benn radiyallahu anhu xaala man xaar saa sallam man kaana lahu shaarun fal yukrim yeneen bi saa sallam nee na képp ki nga xamante ni am nga li nga xamante ni mooy karaw na nga nekk ko nga xam da nga koy teral kon loolu yéen sa dafay firndeel ab julit ni lépp li li nit ñi xeexee diine jàpp ni mooy ak ak ak doye di yéen bi da koy daw comme exemple tey nit bu wàcce woon tubayam wala yëkkati ko dañu jàpp ni ko doye di la ci socia ci nu mu tudd société bi waaye pour wane li nit ñi soxla muy ak set ak yu demee da ko doon digle ba xatta karaw sax Abu Hurayra ne salam nee na képp ku yàlla wërsëgal karaw na nga koy teral lu ñuy terale karaw mooy di ko diw di ko peñe xadis boobu bu ngeen demee ci Abu Daawud génn ko taxawee ci muskalul athar ñu jëlee ko ci yaay Aïcha bu ko defee ci biir loolu yonent bi di ñaax nit ñi sax même pour wan la ni la donte nit ki dafa am ay yére bi maanaam dafa nekk koo xamante ni pour wan la ne islam lii muy digle nekkul ak doyadal boo xam nit ñi dañu ciy xeeb xatta islam dafa bëgg nit ki sax bu fekkee yàlla xéewale na ko muy sol moo tax jëlee nañ ci benn saxaaba abil ahwas awf ibn malik an abihi anna nabi saa sallam qaala lahu wa ra'aahu rasta siyaabi fa in fa ida ataaka allahu maalan falyura asaru niamati llahi alayka wa karamatihi xadis boobu abu daawud génne na ko tirmisi nisaa'i ahmad tayaalisi ibni saadi tabaqaat ak taxaawi tamit génne na ko ibni xibaan ak loo xam ne lu forwaat mu ni ko fa ida ataaka allahu maalan su la yàlla joxee alal fal yura asaru niamati llahi alayka nañ gis njeexitalu xéewali ci yow wa karamati ak tedanga tedanga yàlla maanaam mooy su la yàlla defalee xéewal na xéewal ji feeñ ci yow tey am nga xaalis solal yére rafet waaye du tee na nga ko cëkkal comme ni ko yentaan Muhammad bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu dafay firndeel ni li nit ñi jàppee ak doyadi du ak doyadi ndax islam moo féete lépp li nga xam mooy kaw ñaar fukkeelu wala fanweeri xadis ak juróom-ñett an ibni mas'udin an rasul sallam qaala laa yadxulu janna man kaana fi qalbi misqalu zarrati min kibri qaala rajulun inna rajula inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu xasan wa naaluhu xasan qaala inna allaha jamilun yuhibbu aljamal alkibaru bataru lxaqi wa gamtu lxaq batarul xaqi wa gamtu nnaas xadis boobu muslim génne na ko Abu Daawud tamit ak Tirmisi jël nañ ci Ibnu Mas'ud mu ne yéen sasalam nee na képp koo xam ne lu tolloog zarra ci rëy mi ngi ci sa xol doo dugg àjjana lu tolloog bépp zarra ci rëy ku mu nekk ci sa xol doo dugg àjjana ah benn saxaaba ni ko yéen bi benn waaye ci ñun dina bëgg su ay yéreem rafet daal lam rafet bi maanaam mu sol lu rafet loo xamante ni ku gis xam ne li mu sol rafet na yonent bi salaa sallam ni ko bi maanaam inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla dafa taaru dafa bëgg lu taaru bi maanaam mooy nit ki sol lu rafet aayut boo ko amee rëy kay moom al kibru rëy rëy dëgg-dëgg batarul xaq mooy bañ dëgg ku bañ dëgg comme ci misaal koo xamante ni dañ laa jox dëgg mu wóor na lii mooy dëgg nga ne ko fa tegg ni yàq bu baaxut yonent bi ne loolu mooy rëy wa xamtu naasi ak xeeb nit ñi koo xamante ni dañ lay jox dëgg nga ne ko fa yàlla ak koo xam da ngay xeeb nit ñi sax ne ne loolu mooy li nga xamante ni mooy rëy aywa kon ci biir loolu dañuy gis ni ab jullit dañ koo digal su fekkente ni am na ak col gu rafet mu sol ko wattandiku li nga xamante ni mooy xel yu naqare ya ca aju waaye na fexe ba na ko cëkkalee comme ni ko yonti yàlla Muhammad digalee su ko mënee indi ci digg yeel yi fay la alhamdu su ko wàccee benn xabd fay la alhamdu su dee ñaari xabd fay la alhamdu su wàccee ba jub la nga xam mooy dojor fay la alhamdu waaye bu mu paase dojor jëm suuf ndax yàlla da koy lakk ci safara moo tax alxaafis ibni xajar al asqalaani ba léegi bàyyeegul mu ni dinañ jëlee ci ahadis yi nga xamante ni moo paase ni képp koo xamante ni da ngay juubal li nga xamante ni mooy téere bi maanaam jamono bi nga koy buubal su fekkente ni bi nga koy def bi maanaam rëy rëy lu taxul di nga ci am bàkkaar su fekkee rëy rëy lu moo tax da nga ci am gën a am bàkkaar waaye su fekkente niñ ci jëlee ba léegi ni waa ji tamit su fekkente ni yàlla wërsëgalee na ko li nga xamante ni mooy comme alal yi demee noonu yàlla na gis jeexitalu xéwal ci moom mooy nay sol lu rafet nay lekk lu neex te nay ànd ak li nga xam mooy jaamu yàlla def ay ndigle yéen sa salam ak ay tere kon tomb baa ngi noonu mu des bi maanaam tomb bi nga xamante ni defe naa incha allah ci lañ war a jeexale muy assubuhu wa raddu alayha muy lënt lënt yi nekk ci bopp nit ñi ba léegi waa kër yént yàlla Muhammad mënuñoo jëkkal ak tontu yiy dàq lënt lënt yooyu génne ko sànni xam leen ni dëkk bi képp koo xamante ne yéen yaram xam moo sax da nga war a yëkkati sa tubéy ca kaw a kaw mooy assubu ko war raddu alayha bu ko defee ci ahadis yi passé te leer nañ dafay firndeel ni nekkete képp koo xamante ni da ngaa buubal sa tubéy da ngay am bàkkaar waaye lënt lënt yi nekk ci nit ñi def ci bopp nit ñi ba léegi mën a guñoo cëkkal mooy xadisu Abubakrin Siddiq boobu bi mu jëlee ci Ibnu Omar mu ni ib aboubacar nee na ya rasulallah inna ahada shiqay sawbi yastarxi illa an ataahadu dalika minhu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innaka lasta tasnau dalika xuyala abubakar mu ni lenn ci sama lafal tubay si day wadd léeg-léeg waaye su waddee ma ne ko corset yonent bi ni ko loolu bokkoo ci ndax yow dafa ngir réy réy ñu bare bare bare bare tey ñoo xam ne nangu ñoo cëkkal seen tubay dañuy sukkandiku ci ahadis bi waa ji nag mu ne nañu nañu ànd ñun ñëpp ñu njàngat njàngatum sellat ñu xool dëgg fu mu féete rek ñu daal di ko fay jël ñu ñu xam ba xam est ce que sukkandiku ci hadis bi ab sukkandiku waaye la wala tey ñun dañoo topp suñu bànneexi bakkan ba léegi ajaguñ suñu tubay ca kaw a kaw waa ji moom am na beneen riwaaye boo xam ni waaye riwaaye yi ñëw ci Abubakar lay nettali ba noppi doog a toj li nga xam mooy ahadis benn bi dani inna ahada siqay taw bi yastarxi léeg-léeg dafay yolob wat waaye wax na dinaa ko yëkkati ma Abubakar benn mu ne bu fi am riwaaye boo xam daf ni fa qaala abubakar innahu yastarqi idaari ahyaanan abubakar dani léeg-léeg dafay yorom waaye léeg-léeg léeg-léeg kon du chaque jour lay wat ñaar mu ni wa fi riwayatin wa fi riwayatin inna ahada janibay idaari yastarqi mu ni ko riwaaya boo xam ne daf ni sama lenn ci sama ñaari lafal séri yi dafay wadd waaye illa an inni la ataahadu dalika minhu maa ngi koy bàyyi xel balaa laa suuf rek ma yëkkati waat am na riwaaya boo xam loolu la indi yéen tasalam ni ko lasta mimman yafaluhu xuyala yow defoo ko ngir réy réy kon façon bi yax yooyu moom la indi waa ji mu ne numéro un bismillah mu ni fa qaalu ñu inna qawla rasul sa sallam li abi bakrin innaka lasta minhum mimman yafalu dalika xuyala tasrixun bi anna annahya li ajli alxuyala walladi yafaluhu xuyala gayra daxil lam yafalu xuyala gayra daxilin fi nitaqi alwaid fi hada almaana ñu ni wax yéen ci wax Abubakar ni ko lasta minhum maanaam defoo ko ngir réeréelu day firndeel ni kon ku ko deful ngir réeréelu mën nga cee mucc li maanaam mooy wax gi yonent bi wax ni bokkoo ci ndax defoo ko ngir réeréelu dafay firndeel ni kon def ngir réeréelu la ñuy tere su fekkente ni defoo ko ngir réeréelu nag kon nee nañ génn nga ci li nga xam ne mooy cadre tëkku boobu yàlla yonent bi tëkku saa sallam mu ne ñi nga xam dañuy sukkandiku ba tere leen a cëkkal mu ni ci loolu lañ jàpp xultu borom téere bu ni bismillah man man moom borom téere bi mu ni kama taqaddama fi qawli alayhi salaam li xudayfata indama axada qabdatan inda saaq bi adrat saaqi wa qala hada mawdu lisaar fa ida fa in abayta fa as fa in abayta fa asfala fa in abayta fala xaqa lil isaar fi lkaabayn wax yéen ci waxoon xudayfa ni ko jàpp ci digg yaram ni ko fii mooy toguwaay tubay wàccaat tuuti su ma ñàkkee wàccaat tuuti waaye bu mu àgg ci dojore mu ni wax jooju ci laay njëkkee mu ni soo jëlee say bët nga teg ko ci nga xool bu baax a baax a baax da ngay gis ni nattale gi yentu sa sallam doon nattale tubay mooy li ma waxoon léegi dina moom la waa ji répété waat mu ni lan moo waral léegi yonent bi kon di natt tubay daan tubay fii la war a yem wala mu yem fee wala mu yem fee kon loolu day firndi ni tubay wërta yem feneen fu dul foofu yonent bi natt salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaye kon su fekkente ne léegi comme réeru lu kese la waa ji mu ni fala xaqa lil isaari fil kaabay ni kon ban sens yàlla moo ne ma wayn toxanil xawa yonent bi dox ci bànneex bakkanam kon ban sens kon yonent bi dañuy jàpp ni kon daa amoon jot di wax rek di sànni kon fala xaqa lil isaari fil kaabay tubay amul droit accès ci dojor mu ni ba ko yonent bi wax kon léegi ban sens la yam su fekkente ni nee nga ku ko deful ngir réerélu ku ko def te réerélu taxul bokkoo ci kon mu ni wax jooju ban sens la yam xam ngeen loolu xel sax moo ko njëkk a dàq bu ko defee ci biir loolu waajit bi mu leeral mu ni yonent bi mu wax yaa abdallah irfa idaarak ak charte bi mu def ci charte bu nekk ab jaamu yàlla da ngaa ci kësa tubay ji mu ni kon loolu su fekkente ni loolu am na kon léegi ban amul kon ban sens la wax ji di am léegi wax ji du amat sens te xam ngeen ni yonent yàlla muhammad du wax lu amul sens sallallahu alayhi wa sallam kon loolu ci dàq la ci kàddu yooyu ba numéro bi ci tax mu ni inna ababakar radiallahu anhu lam yaqul inna idaari jaaltuhu tawilan ñun ñii suñu tubay dañ koy bàyyi mu gudd ba noppi di layoo ci Aboubacar mu ni Aboubacar néewul woon sama tubay ji daa gudd yéen ci waxul woon loolu Aboubacar néewul woon sama tubay ji daa gudd aw qaala inni artadi siyaban tawila Aboubacar néewul woon yéen ci man su may ñawlu yére damay ñawlu tubay yu gudd waxul woon loolu de walakin qaala waaye dafa waxoon ni inna ahada shiqqay idaar yi len nit ci sama lafal tubay bi kon mu ni loolu day firndeel ni Aboubacar dafa cëkkaloon comme ni nit ñi cëkkalee tuba ndikk li ni mu meloon mooy waral léeg-léeg muy bay wadd suuf waaye Abubakar bàyyi wul tubéy comme suñ tubéy niñ ko bàyyi benn bi ci des mooy wax gi nga xamante ni moom lay wax ni sarxi ak axyaana ak yooyu muy dafay firndeel ni kon bu chaque jour nga gis tubéy Abubakar ci suuf léeg-léeg rek ngay gis mu wadd ngir ndigg li ni mu mel comme niñ ko misaal ni dafa nekkoon koo xamante ni dafa xaw a sew waaye lu Abubakar lu ci Abubakar teg illa ani ataawa ñun ñu ngi layal xadisu Abubakar bàyyi suñu tubay muy buubu te Abubakar moom bàyyi wala tubay muy buubu Abubakar dañu man illa anni ataahaduha maa ngi koy bàyyi xel fu mu nee corset ma ne ko cabax yëkkati ah waaw lu tax ñun ñi ciy layoo fu ñu nee cabax duñ ne ko corset yëkkati ba pare di ci layoo kon loolu waa ji mu ni xel sax nanguwu ko kon ab daaj daanu la boo xamante ni ñu ngi koy njuumte di di ci juum benn bu ko defee ci biir loolu waa ji muy leeral ba léegi ci lay yi nga xamante ni nit ñaa ngi koy jàppee xadisu te mu nekk ay njuumte muy leeral ni aman na njuumte war nañ ko wattandiku parce que ngir mucc ci tëkk yooyu mu ni fa inna hadihi sifa lati wasata sallam bi xaala abu bakrin yéen bi mu wax lasta minhu bokkoo ci waaw ñun kan moo ñu wax lasta minhu yéen bi abu bakar la wax yow bokkoo ci ñun kan moo ñu wax ñun bokkuñu ci est ce que sax ñun di bu ñu ko ngir réeré kan moo ñu wax ñun dañuy réer wër loolu yàllaa ko xam waala kulli xaal yooyu rek mu ni war naa sax ñu daal di koy daw mu ni wa kadalika anna aba bakrin lam yakun yarda li nafsi an yatruka idarahu yastarxi abu bakrin musta nangu di bàyyi tubayam muy buubu looloo waral mu ne yonent bi maa ngi koy bàyyi xel fu mu nee corten ma ne ko cabax yëkkati kon loolu dafay firndeel ni ñi ciy layoo kon am njuumte la bu ñuy njuum ñu ngi leen di laay biir ñu dellu ci waat gannaaw bu ko defee ci biir loolu jiim waa ji mu ni baadama qaala rasul sallam man jarra sawbahu xuyara lam yanzur la ilay bi yonent bi ne ku bàyyi tubéyam muy buubu yàlla du la xool Abubakar na di ko man sama lenn ci labal tubéy si dafay wadd léeg-léeg waaye maa ngi koy yëkkati bu ko defee waa ji mu ni loolu dafay firndeel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ku mu xamoon ni Abubakar nekkul woon kuy réeréelu muy benn ñaareel bi mooy xam ku mu xamoon ni Abubakar tubéyam ji bàyyiwu koon muy buubu chaque jour moo tax bokk na ci mu ni ko yow bokkoo ci ndax Abubakar daaw ko bàyyi mu buubu chaque jour daf ni ko ahyaanan mooy léeg-léeg temps en temps comme ni ngeen koy waxee ayu mu ni daal mu ni xawlu rasul li Abubakar lasta minkum ay lasta yaa Abubakarin mu ni ko anta yaa Abubakarin mooy li ma wax léegi mooy joxañ gi mu joxañ yonent bi ni ko yow bokkoo ci mu ni amul kenn ku ñu joxañ yow bokkoo ci kon daal di koy moytu mooy li nga xam moo gën a mucc ayib aywa kon suba bi nga xamante ni moo nekk ci Abubakar kon kooku moom di bis ni ki tey waaye du koy layooti war nga indi lay yu mel ni waa ji indi bu ko defee nga doot ci mën a layo kon boobu moom pare na ci ak subahu saani lënt bi nekk ci bopp nit ñi ba tax nit ñi bañ a yëkkati seen tuba yi mu ni allati yudandinuuna biha kadalika ma dakarna fi lxadis wa iyaka wa isbal al idar fa innaha min al maxila mooy wax gi ñuy wax ni maa ngi lay wattandikuloo buubuloo tubay ndax buubu dafa bokk ci réeréelu bu ko defee ñu jàpp ni kon ku réeréelu rek bokkoo mu ni min googu moo rey waaju bari gaa yu baree bari bi maana minal maxirati nit ñi dañ koy firee dafa bokk ci réeréelu comme xam nga yéen sa daf ni wa iyaaka wa isbal al idar fa innaha min al maxila maa ngi lay wattandikuloo buubal sa tubay ndax buubal tubay dafa bokk ci réeréelu bu ko defee ci biir loolu sukkandikoo gi ci gaa yi sukkandiko di wane ne bi maanaam dafa bokk ci réeréelu comme man réeréelu ma rek léegi war na maa mën a jël li nga xamante ni mooy bi maanaam sama tuba bàyyi ko noonu waa ji muy wane loolu nekkul li nga xam lu dëpp ak dëgg la ngir lay yi nga xam moom lay bëgg a indi bi ci njëkk mooy mu ni aqulu hada fahmun qata lil hadisi fa inna min li tabaid bila raybin ولكن المعنى ليس كما فهم هؤلاء وإنما دال على أن اللفظ المخيلة عام يدخل في إسبال الثوب bi maanaam waxuma la pour rëy dafa bokk rek ci ci li nga xamante ni mooy buubal tubay waaye buubal tubay sax dafa nekk ndayu li nga xamante ni mooy rëy rëy loolu la ci yent bi jublu sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi moo tax mu ne laa yansurullahu ilay yàlla du xool waajoo yi nga xamante ni mooy def loolu ci ahadis yi nga xam ne mooy passé duñu ko répétaat ndax jaaroon nañ ci bu ko defee ci biir loolu waa ji muy leeral ba léegi mu ne yëkkati gi yent bi doon yëkkati salawatullahi wa salaamu alayhi tubayu gaay lu jaral yonent bi mu jug daal di ñukkat daw lu jaral yonent bi mu jàpp karaw boppam di wax tubay góor fii la yem lu jaral yonent bi muy natt ay baanaan fii la feera lu jaral yonent bi nag mu agsi fii muy loolu war nañoo xalal bu ñu xelloo ñu xam ne ci dëgg-dëgg tubay war ta passé li nga xamante nii mooy war ta àgg fi nga xamante nii mooy dojo ci biir loolu nga xool ahadis yi passé yëpp di dëkku mu ni loolu dafay wane ni kon nekke yéen sa salam wa ma yantiqu anil hawa du wax ci banneexu ba kanam kon yooyu mu wax ay mbir la yoo xam ne sukkandikuwaay yu dëgër la ngir ñu mën cee jàpp xam ne loolu mooy li nga xamante ni mooy lu wér ñetteel mu ni am na ahadis yoo xam ni ci subuh yi ñu ngi koy sukkandiku te ahadis yooyu du ab sukkandikuwaay xam nga wax nañ sukkandikuwaayu réy réylu pare nañ ci wax nañ sukkandiku Abubakar pare nañ ci ñetteelu sukkandikuwaay bi mooy ahadis yoo xam ne yonent sa salam dañ koo mos a gis muy buubal tubayam nit ñaa ngi ciy sukkandiku te effectivement ahadis yu wér la waaye nañ ko jàngal ñu xool fan la ñuy mujj ñaar fukkeelu fan fanweer ahadis ak juróom-ñeent juróom-ñett la ñëwoon mu ne an abi bakara qaala خطفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وصاب الناس وصلى ركعتين حديث ba mu ngi ci Bukhari mu ngi ci Nisaay mu ni benn bis jant bi dafa mos a muur ñu nekk ci yonent sa salam ñëw di ñu jullee waaye yonent mi ngi yàkkamtee yàkkamti ba yërëm yaa ngi buub dégg ngeen de mu ngi yàkkamtee yàkkamti ba yërëm yaa ngi buub waa ji mu ne jàppal jàppal ma boobu yàkkamtee yàkkamti yonent bi jullee ñu ñaar rakk benn fan ñeen fukkeelu xadis mu ne an Nu'man ibni Bashir qaala in kasab in kasabat ash-shamsu ala adra sa sallam fa xaraja yajurru sawbo fazian hatta ata al masjida falam yazal yusalli bina hatan jallat xadis boobu mu ngi ci Abu Dawud Nasaay Nu'man ibni Bashir mu ni jant bi mës naa muur ci jamono sa salam yonent bi génn tiit tiitaay nga ji waral na yéreem yaa ngi buubu lu ma waxoon sànq yàkkamtee yàkkamti bërëm yéreem yaa ngi buubu sànq léegi ma ne tiit a tiit bu yéreem yaa ngi buubu mu ne jàppal ma ñaar yàkkamtee tiit mu ne ñeent fukkeelu xadis beeg benn an abi saïd alxudri qaala xarajtu maa rasulillah saa sallam yowma alisnaini ila xuba xatta ida kunna fi ba bani salim waqafa rasul sallam ala baabi atban fa saraqa bihi fa xaraja yajurru idaarahu fa qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam ajalna arrajul xadis ba mu ngi ci abu daawud nasaayi wala waaw xadis boobu mu nga ca muslim maanaam muslim moo soloo xadis boobu abi saïd alxudri nee na génn nañ ñu ne yéen sasalam bisu àddina jëm ca masjidu Quba nee na bi ñu dikkee ba ci bani Salim bi naan giir fañ bani Salim yéen bi taxaw ci buntu bu Atbaan daal di yuuxu daal di koy woo nee na bi mu ko wooyee rek waa ji ñu bëri jub di ñëw nee na bi muy ñëw yëreem yi ko di buub maanaam mi ngi buub yu yéen bi ni soo waa ji day moom yàkkamti nañ ko maanaam ñun ñoo ko sànjaaf ba bi muy jub tubéy ji mi ngi buub gis nga de kon ñoo ko sànjaaf ak mu tiita tiit ak mu yàkkamte yàkkamte ñetti xadis yi la mu ni jàppal ma ñetti baat yooyu bu ko defee waa ji yonent bi moo ne yàkkamte ndax xam ngeen ne en général nit bu toogee surtout ak tër yu njël tubay mën naa rës woo gi ko yonent bi woo ak woo gi ni mu fooree moo waral mu ni bëri tubay ji rës mu indaale tubay ji ni muy buuboo yonent mu ni yàkkamti nañ waa ji ba waa ji daal di rësal tubay ji yëkkatiwu ñe ñeent fukkeelu xadis ak ñaar mooy xadis bi koy jeexal mooy an imran ibni xusayn an nabi saa sallam salla al asra fa sallama fi talaati rakaati summa daxala manzilahu fa qaama ilayhi rajulun yuqaalu lahu alqarbaax wa kaana fi yadayhi tuulun moom la ñuy wax zul yadayn fa qaala ya rasul allah fa dakara saniatahu saniahu wa xaraja gatbaan yajurru ridaahu xatta intaha ila annas qaala asadaqa hada xadis boobu su ngeen demee mu ngi ci muslim mu ngi ci abu daawud mu ngi ci nasaay jëlee ni ci amran ibnu xusayn mu ni yéen sa salam benn bis dafa jullee gaa yi tàkkusaan bi mu jullee tàkkusaan mi ngi sëlmalee ci ñetti raaka mu sëlmal ci ñetti raaka rek pare daal di jóg dem dugg néegam ah benn waaye bu ñuy wax alxarbaq daal di ñëw moom la ñaan sul yaday ni neen loxo bi dafa amoon benn benn loxo bi dafa xawoon a gudd mu dikki waaw yaay yonente bi yow li nga def seetlu ko mu ne ko nu ma def mu ne ko yow ñett raak nga julli yonente bi jàpp ni ñett ndax jàpp ni ñeent la julli yonente bi mer génn gis nga de mu ne yonente bi mer génn bi mu meree génn yëri yaa ngi buubu ndax ni mu meree mu ne eh est ce que waa ji wax na dëgg gars yi ni ko wax na dëgg kat yonente bi daal di mottali julli kon gis nga yonente bi mer génn ak yonente bi yàkkamti génn ak yonent bi tiit génn ak sànjaako nañ waa ji moom tiit génn jàpp leen ñeenti baat yooyu waa ji mu ne bismillah mu ne wax nga dëgg d'accord xadis yi yëpp bu bugg yére am na ci waaye qaala nawawi yéen imam nawawi nee na yajurru ridaahu yaani li kasrati inshigaalihi bi sani sala yonent bi mi ngi buubal yére yi ngir yàkkamti gu mu yàkkamti ñëw defar yére yi julli gi moo waral bi maanaam bi muy jug seetluwul sax tubayam moo waral yére yi di buubu noonu bu ko defee ñu ciy layoo ci buubu googu bëgg koo jël def ko mi nga xam mooy dalil yonent bi alayhi salaam taxaw gi mu taxawoon ci buntu waaja daal di koy yuux waaja génn sànjaaku yonent bi feeñal na sababu buubalu tubé ji muy dégg ngeen mu ne aajal na rajo ñun ñoo sànjaaku waaji yàkkamti ko moo tax gis ngeen tubéyam jaagi nii di buub kon gis ngeen ñoo ko sànjaaku nde waaji buñ ko mosaane gis bu dul bañ ko sànjaaku tubé ji lay jub ba ca kaw a kaw mu ne fa limaada qaala sa aajal na rajo lan moo tax yonent bi wax ni ñun ñoo sànjaaku waaji waaji jub mu ni wa hada alfial ay alladi yakunu ridaahu in jalla listijaalihi yakunu xaarijan min daairati lixbaar mu ni waa ji ni mu sa ni tubayam génnee di buubu ndax sànjaaf gi ñu ko sànjaaf yonent bi ni mu génnee ndax mer ca waa ji li mu ko wax sa julli gi matul yonent bi ni mu génnee ndax tiit ndax jant bi ni mel yonent bi ni mu génne ndax yàkkamtee jullee waa ji mu ne yooyu dafay génn ci cadre isbal lu tax mu ciy génn mooy buubal ndax yu ci nekk bii mer la bii yàkkamti la bii te moom lu lu action bi am moo waral loola am waaye ba mu accélérat dina yëkkati tubéy ji moo tax yonent bi seedal ko waa ji ne kon li waral waa ji buubal tubéy ji moo tax yonent bi nan aajal na rajo ñun ñoo sànjaaf waa ji moo tax waa ji daal di génnee nii kon mbokk yi ci biir loolu waa ji mu ni wa xitaaman aqulu laka axi l muslim mu ni bi may jeexal ci xadis yooyu ma la doon jeexalee lënt yi ngir wan la ne la ca dëgg-dëgg sukkandiku waaye yi ñuy sukkandiku wéerul axil muslim mu ne yow sama doomu ndey julit bi yow mi tax ma daal di bind téere bi ngir am laay biir gu ma lay laay biir mu ne amma laka fi l awalina qudwa est ce que amoo yéene nga daal di jël ñi fi jiitu woon muy sahabatul kiram taabiin yi salafu saalih def leen def leen référence amma laka fi rasulillahi uswa xanaa amoo yéene jël référence def ko yéen ci yàlla muhammad ñun ñëpp daf dëkku lenn luñ mën a werante werante moom kenn ñi ma wut a wax yéen ci ndax dafa wël tubéy moom da daan jëkkal loolu mu dëkkoon nañ ci waaw est ce que doo jël yéen bi def ko référence yàlla mu ne walakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen référence bu rëy ci yonent bi jël ko à cent pour cent ni mu doon soccoo sax ngeen di soccoo noonu est ce que amoo yéene topp yonent bi xel xalaat la mukk nga am yéene ëllëg nga ànd ak yéen ci yàlla muhammad dugg àjjana yéen ci yàlla muhammad di jëkkal tubéyam gën a téeméeri junni yoon ngay bubal sa tubéy mu ne est ce que xel nangu na loolu déedéet xel nangu mu ni ba léegi maa ngi sàkku ci yow di la ñaan lépp loo xamante ni ak rëy la wala lépp loo xamante ni ak sóoraale nit ñi la wala lépp loo xamante ni ak lënt la gu nekkoon ci sa xel mu ne la maa ngi lay ñaan yow sama mbokk jullit yi nga daal di koy génn ci sa xel mi te xam ne ci dëgg dëgg dëgg ñun aljana la ñuy wut faalewuñ kenn bu yent bi ni woon nañu cëkkal suñu tuba yi ba ci oom yi muy dañ koy cëkkal parce que ñun aljana lañ soxla bu yent yàlla muhammad ne woon bu ñu génnee nañu def tànku ne ñu dem mooy dañuy dem ndax àjjana la ñu soxla amul benn orientation waa ji mu ne bu yent bi joxe saa salaam lu dul nañ jaar parce que àjjana la ñu soxla waa ji mu ne yow sama mbokk jullit maa ngi lay laaye biir boo dee def lii di mbir mii na nga ko def tamit mu sell su fekkee yëkkati nga nga def ko alhamdulilah bëgg waaye na nga ko def ngir muy sell te na nga xam ni tamit nag boobu di cëkkal benn la bu tuutee tuutee tuutee tuutee tuuti ci jaamu yàlla yi benn bu tuutee tuuti ci jaamu yàlla yonent bi wax ci tëj ko xadis yi ñaata xadis laa tudd mu commencé ak léegi ñeent fukki xadis ak ñaar laa fi tudd waa ji mu ne lu tuutee tuutee cëkkal nga xam ni nit ñi sax xamal ne dañ ko tudd ay finalité nga xamante ni xamoon luy finalité comme ni ñu koy waxee noonu waaye yooyu mu ne lu tuutee tuutee loolu ma sàggane comme normal sànq ëllëg dugal ma safara waa ji mu ne yaa axi xoolaatal li nga xamante ni mooy sa xel mu ne maa ngi lay ñaax di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala su fekkente ni mbir mi fekkoon na la bi bi ngay jot ci sama ndénkaane sama téere bi mi ngi la fekkoon ngay yëkkati sa tubay lillahi alhamdu maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla fekk mu sell su fekkente ni nekk woon ku koy def maa ngi lay ñaax lu tuutee tuutee lii bu mu la xañ li nga xam mooy aljana waaye bu mu la xañ li nga xam mooy gisanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji mu jeexalee wa subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka waa ji mu ne wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin